àndil leen ak ñun ci bépp xibaar bu soxol wàllu politique wàllu musique mbiru yoon xew-xewu jamono nekkinu askan wi wàllu wérgu yaram wàllu doxalinu nit wàllu diine lépp di xewee mbokk yi nga xam ne yéen a ngi saxoo di lu seen seen bi di ASID TV ñi nga xam nga ñi ngi fii nga xam ne muy euh, rond-point croisement Cambérène bu ñu fi ne rond-point croisement nag mooy fi nga xam ne gisoon nañ fi ay jaaykat yu takku yu bëri lool nekkoon fii doon jaay ay portable ñi di jaay ay fëgg jaay nekkoon ci rond bi ginnaaw bi ñu jullee tabaski ba pare na dañoo gis na ñoom daanaka dañ leen fi yëkkati dañ leen fi yëkkati ñoom ñëpp daanaka euh, kenn nekkatu fi dinañ dox dem si biir mbooloo bi jël nit ay interview fas yéene waxtaan ak ñoom si lu waral li nga xamante ne daanaka euh, mairie euh, Dalifort bi def nañ ko jëmale ko si ñi nga xamante ne ñoo doon lal fii di jaay euh, si rond fi nga xam ne rond point croisement Cambérène. ñun dañoo xëy fii rek gars yi ñëw nañu waru leen lal quoi da ngeen di laal parce que fii mooy loolu ñun xamuñ lan moo ko waral ba léegi. ñu ne ñaam préfet la ñu naan waa mairie la. ñu naan kenn xamul daal ñun daal vraiment comprendre luñ dañoo julli ji ñëw suñ bagage yëpp gars yi tasaare nañ ko daaj nañ suñ bagage yi booy sàcc nañ suñ bagage yi instant ñu ngi nii taxaw di xoole te ay borom kër lañ comme ñëpp waaw ay borom kër lañ ñu ngi nii gars yi am na ci ñoo xamante ne ñëwaguñ dañ leen woon dañ mujj daw ñëw waaw ñun daal vraiment daal jaaxle nañ quoi te aussi lii nag ñun ay doomu réew mi lañ ta ay doomu réew mi lañ te lii la ñuy suturloo dañu yore njaboot yore ay kër di fay location di dundal suñuy njaboot vraiment ñun daal bu ñu ñëwee nañ ñu wax nañ joñ sa sommation ñu mën a xam ne dañuy yëkkati ñu wax ñu ko waaye dañoo ñëw dañu ñu ñun daal vraiment comprendre ruñ quoi wax dëgg yàlla comprendre ñu ngi ni ñoo gisandoo taxaw sax dañ koy tere suuf moom sax boo taxaw dañ lay génne waaw taxaw sax dañ koy tere boo fi taxaw sax dañ lay génne suuf moom boo taxaw dañ lay génne dañ naan leen génn leen jëriñ ñoo leen siyaar bu baax a baax naka yi tey waa gis nga fi de nii la demee bilaay walaay talaay ñun daal wax dëgg yàlla ay nit lañ ñoo xamante ni defuñu lu dul jaamu yàlla ak liggéey ngir suñ njaboot fii ci suufu pont croisement Cambérène wax dëgg yàlla nit ñu sell laa fi xam ni ñu nekk ñoo xam ne ay responsabilité am na ni ñu responsable daal ñoo fi nekk wax dëgg yàlla bu ñu xëyee xëy rek jekki-jekki rek dikk ne la jógel fi nga nekk te wax dëgg yàlla euh, joxuñu la benn raison bu tax nga jóge fi tamit danañu jaaxal ndax ñu dañoo jóge tabaski rek ñëw yam ci lii quoi wax dëgg yàlla nee nañ ay problème agression moo fi am affaire yooyu noonu te wax dëgg yàlla agression mën naa am mënul ñàkk de waaye man comprendre ma ndax ndax ndax agression bi fii la am wala parce que ci suuf point bi nii wax dëgg yàlla man gisuma fi agression mën na nekk nag am ci kaw wala bu guddee bu nit ñi liggéeyee ba wàcc waaye wax dëgg yàlla fii ci bëccëg ñun ñu fiy yend ba di ba wàcc jot ñu wàcc moom gisuñu fi benn agression wax dëgg yàlla ñàkkul nag moom euh, foo dem am na ñuy liggéey ngir yàlla am na ñoo xam ne tamit leneen moo leen tax a jóg loolu moom yaatu na fépp loolu moom bari na fépp wax dëgg yàlla mais fii moom wax dëgg yàlla xëy liggéey lañ ci xamoon wàcc dem ñibbi luñ ci am yóbbu suñu kër wax dëgg yàlla fii ñu nekk fii la ñuy eh, daane suñu doole fii la ñuy defee lépp loo xamante ni mooy sutur la li ñu suturloo daal lépp fii lañ koy liggéey daal wax dëgg yàlla moom li ñu suturloo lépp moom bëgg naa daal ñu xoolaat daal bu baax a baax a baax ñëw fi réglementé waat mbir mi kenn ku nekk ñu xool li nga xam si moo yellu si yow ñu def ko loo xamante si moo yellu si yow ñu def ko ci kàttanu yàlla parce que affaire daal doy na war daal ndax lii moom a ah, dina métti dina métti trop ci ñi nga xamante ni ay chef de famille lañ yor ay soxna di ci fay seen ay location di ci kii mu wax dëgg yàlla moom lii moom dina métti ci ñoom trop trop trop booy boo daal ñu xoolaat bu baax a baax a baax ni ñu ni ñu koy réglementé waat ba ku nekk ñu ñu delloo fa nga nekkoon ba pare teg ci yeneen i ay mesures daal que ñun fi wax dëgg yàlla fonk nañ ko trop. ñoo koy dañ koy bele di ko nettoyé wax dëgg yàlla liggéey daal lañ fi xam jaamu yàlla waaw nañ ci nañu daal waslu àq daal bu baax a baax a baax xoolaat bu baax nañ koy réglementé ku nekk ñu xool lii sa àq ak sa yelef ñu ñu ñu ñu jox la ko parce que ñun ci réew mi leen dëkk fi lañ juddoo fi lañ yaroo am fi yaay am fi jur amuñu feneen fudul fii waaw bu doon ci beneen réewu jàmbur lañ ko def sax mais ñun suñu réew la ñu nekk sàcc ñu agressé wu ñu këfuñu yëfi jàmbur defuñu dara lu dul liggéey rek. internet yi comme ni ngeen koy gisee noonu ci image yi daanaka ñoom dañoo xëy fekk ñu yëkkati leen si rond bi fii lañ leen yëkkati ñoom ñëpp daanaka kenn nekkatu fi boo leen xoolee benn jaaykat nekkatul fii si rond bi daal ñoom ñëpp lañ fi yëkkati ba mu set wicc ah, fi nga xamante ne muy bi nga xam ne ah, croisement Cambérène ah, mu doon loo xamante ne daanaka commerçant yi fi doon lal la ñoom ñëpp dañ leen fi yëkkati ñu fi doon daan seen doole nag daanaka am nañ ay lu leen naqare lool seen xool dem leen koy déggee noonu si seen kàddu yi ñu koy expliqué. waaw man tamit fi laa nekkoon yàgg nañ fi fii la ñuy liggéeyee ñun ñëpp fi la ñuy daanee suñu doole quoi ñun moom vraiment. gaa yi fi nekk yëpp liggéey jaamu yàlla lañ xam kenn kuy jël alalu jàmbur nekkul fii waaw da fekk nag nit yi boo ko yëkkati sax war nga def benn sommation wala nga joxe délai boo xamante ni alalam du yàqu mais jékki-jékki bàyyi ba nit ñi ñi ñi dem dem tabaski nga jaar seen ginnaaw yàq seen bagage yëpp vraiment lu ñu metti la lu ñu metti la te fii ku fi ñëw xam ne ay agresseur nekkuñu fi waaw amuñ benn encombrement bu ñu def ci ci ci voie publique bi wala yooyu noonu gars yi fi nekk ñoo koy bale ñoo koy entretenir amul lenn lu ñu moo xamante ni mën nañ ko def ba nga xam ne jaral ñu ñu bàyyi leen fii waaw ñu fi nekk ay père de famille lañ ay ay jeunes lañ ñu motiver yoo xamante ni état wutalu leen liggéey ñoom ñoo créer seen bopp liggéey kon état bu leen xañee liggéey tamit day metti lii rek mooy waral nit ñi di dugg si gaal yeeg di def ay di wàcc seen yoon waaw nit ki buy góorgóorlu da nga koy encadrer mais doo ko fexe ba li muy suturloo nga xañ ko ko xam nga ku nekk fii faw nga dund faw nga liggéey ah buñ li ngay liggéeyee ñu la ko xañee buñ la ko xañee nooy def. waaw ah, man daal fii laa nekkoon doon jaay waaw doon fi suturloo ma ak samay morom léegi ñu xëy rek dimanche woo ñu na nañu jël suñuy bagage euh, sans explication waaw ñëw nañu ne ñu jël suñuy bagage dañu dañu dégagé waaw joxuñu ñu avertissement joxuñu ñu joxuñu ñu sommation. léegi même mairie sax yëgul yëgul affaire bi léegi daal ñun dañu ñaaw njot ci naar bi ñu bi moom foofu bi bi ñu loué euh, kii bi batiment bi parce que moom ay bois lay jaay foofu waaw moom moom day day day liggéey foofu léegi nag tout le temps daf ñu daan menacé ne nañ nañ quitté nañ quitté mais ay borom kër rek ñoo fa nekkoon di di di daan seen doole wax dëgg yàlla léegi nag euh, jëlee nañ ñu fa sans raison te jëluñu dara teg ko teg ko si si si place loolu metti na lool nag ci ñun metti na trop ci ñun wax dëgg yàlla waaw euh, lu ngeen ci mën a jàppee rek ngeen jàpp ci parce que ay borom kër rek ñoo fa nekkoon wax dëgg yàlla te ñu bari sax dañu demoon julli ji Touba yëguñu ci dara yëguñu ko dañu ñëw rek def li ñuy def waa ànd ak commandant wu euh, mariste bi gendarmerie mariste bi indi ko kooku ne jël leen seen i bagage noonu daal lañ ci toll mais amuñu ci benn explication ni rien waa nii nag nañuy def tout le temps dañuy dañuy fay juuti chaque jour ñuy joxe suñu xaalis di fay juuti dañu la leen di neex rek ñu xëy yëkkatuñu mais loolu sax mairie bi moo ko daan def mais cette fois ci moom du mairie bi waaw du mairie bi commandant euh, euh, gendarmerie mariste moo ñëw yëkkati euh, yëkkatiñu waaw yëkkatiñu waxuñu dara expliqué wuñu dara waaw mais ñun naar bi daal la ñu gën a ñaaw njort que ne moo ko def waaw moo ko def waa loolu daal moom mooy mooy suñu suñu kii daal vraiment loolu daal lañu amoon pour pour wax leen ko pour expliquer leen ko vraiment vraiment métti na lool nag métti na lool ci nit ñi parce que ku ci ne rek dépense fa lu si bari fa nga koy wutee waa xañ nañ ñu ko te joxuñu dara lu ko remplacer noonu la demee ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf merci beaucoup àndi leen ak ñun ci bépp xibaar bu soxal wàllu politique wàllu musique mbiru yoon xew-xewu jamono nekkinu askan wi wàllu wérgu yaram wàllu doxalinu nit wàllu diine lépp di xewee